Salut les amis de Baba Show et de eSport TV. Merci encore gars de la confiance renouvelée. Merci de vous des likes, merci de vous des abonnés. Merci également gars de baisser les commentaires. Un hein. plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations inbox sénégalais. Fait folle maintenant 14 régions du Sénégal. Roukhoukhari Gogokhari ñu ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci la l'hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm. ñu nekk ci kaso yi ngeen xam ne aussi erreur judiciaire gi ñeneen ñi deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xale leen ajale fi daw si gars yi te yéexee ñu on avance ensemble dans la magie des eSports TV de Baba L'actualité en continu, Gaïa, actualité mieux facile, Wartan, Elingham, Donko. Lili Cameroun, Lili match également euh, Sénégal, Cameroun, Bichogo, Beri, Judno, Fanakate, ou à Fédération Marocaine, et plutôt euh, Camerounaise, actuellement, Nexia et Trof Trof, là, point mercato, Bin, Diwa Real, par pour 50 millions, table Bit pour jënd Alfonso Davies lors d'Al mooy seen plan faseru wuñ koo passé bu fekkee sax nee euh, donc kii di Alfonso Davies a euh, na accord de principe am waa euh, Real waa Bayern nag bëgguñu ko jaay bëgguñu ko bàyyi mu dem librement moo tax Par pare nañ pour jaay ko pendant ça également club yu mel Manchester United Arsenal Paris Saint-Germain ñi ngi intéressé wu ci ki xam donc ki ñu dul Roy Sané hein ah, li Roy Sané donc actuellement on que joueur boo xam il y club eu club ngi koy convoité fi mu nekk ni qui n'a di Pierre-Emerick Højbjerg hein ah, le joueur de Tottenham club yu bëri nag ñu ngi koy topp jamono ji notamment du côté de Nice li nga xam ne rek à Napoli ou à Juve dal du côté de l'Espagne Atlético Madrid également ils sont intéressés par OIS Osberg plutôt qui hein. ramène également donc Warren Zaire emery selon les dernières informations également relayées par plusieurs médias avec Fabrizio Romano à euh, Paris Saint-Germain d'accord avec ak qui pour prolonger le contrat Mon on la nouvelle pépite la nouvelle tête de gondole du club parisien pendant ce temps du côté de Yaoundé au Cameroun qui ramène Samuel Eto'o Fils est jamono ji est ci ay tolof tolof la nekk li nga xam ne statut bi nga ko ci

qui dit Rigobert Song mais nak chargé de communication bu qui dit Samuel Eto'o moo génn wax lu graw néna dal match euh, Cameroun Sénégal avant ñu ko jouer, joueur yi euh, à quelques heures du match joueur yi ñu won jouer match bi liko waral moy né ñom dañu japp né dafa am benn joueur boo xam dañ leen ko imposer pour mu daal di joué te ñoom bëgguñu ñu leen di imposer ay joueurs na décision bi jógee ci entraîneur et tout et tout muy kaaw ben joueur bo xamné ne ñëpp xam nañ ko mais néna dal ministre des sports bu Cameroun mo doon insister nee nañu jouer ba tax na dal joueur yu bari ñom dañ ne woon match contre Sénégal duñ ko jouer parce que ñom lool d'al. nekk na loo xam ne duñ ko rafetlu wuñu ko benn yoon benn yoon benn yoon par rapport ak li nga xam ne mooy donc taxawaay boobu noonu nag joueur boobu nag nga xam ne gars yi moom lañ ne dañ koy jàppat tànk du keneen ku dul ki nga xam ne nag mooy donc kii di André Onana André Onana bi nga xam ne yi donc mom depuis ba mu gis ngeen ko bu Coupe d'Afrique bi dafa jugee fa nga xam donc ci euh, Manchester daal di rejoindre équipe bi lolé pour man déjà du yoon parce que dafa waron féké phase regroupement bi phase préparatoire et tout et tout mais nak fédération ñom ñoom Samuel Eto'o ñoo may mu daal di dem mais après bañ nee ko da ngay toog donc entraîneur bi mom moom jëloon décision bi day toog selon le chargé de com de Samuel tout donc dafa am kenen ku nekk ginnaaw ko doon imposer gaay nak nag ministre des sports la parce que mom daal mo do imposer Onana pour mu daal nek tout le keroog gis nga nag Sénégal daal leen 3 buts à 1 L'onak nag bu du côté donc des lions indomptables du euh, Cameroun gars yi lii moo jox également ces informations ci Baba Show toujours un plaisir de vous servir des wax ngeen di like wéy di abonné cette année vidéo également ah bu baaxee le ci yéen la gars yi bu